asiru ma lam laarihi naasir Touba 2023 18 safar la ñu nekk ci wàccaay gi booboog léegi 7TV seen télévision di leen ci gunge mbokki téléspectateurs yi baaxoo di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyuwaat kàddu gi di bàyyoo fii ci bàyyeekoo fii ci jannatul maxwa ñu toog ak suñu soppe suñu xarit kenn koo xamante ni saay buy waxtaane ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mbaa muy waxtaane njabootam gi wala sax tukkeem bi ba ci mbind mi nga xamante ni ku tedd ki bind na ko xool yëpp day daal di sedd lool muy Serigne Bassirou Gaye moo ci millier conférencier yi wala sax ci millier télévision yi daañu sëq ak moom waxtaan wu am solo ci màggal gi ci Serigne tubaa ak digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom diggante Serigne Touba ak alxuraan diggante Serigne Touba ak mindam bi waaye lu ko jiitu dañu koy dalal nuyoo ko nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ñu soog a tàbbi ci waxtaan wi Serigne Bassirou ñoo ngi am mbégte ci yombal gi nga ñu yombal euh, jotaay bi. di kontaan bu baax ci dalal ci kër gile di 7TV aouzu billahi min asheytaani rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alsalaatu wassalaamu ashraf al anbiyaai mursalin wa ala alihi dawi ridwaani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa taala wa ginnaaw bi nu santee suñ boroom julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi yeesal sunu njëbbal ci sëriñ tubaa xadimul mustafa sunu yaakaar yi tey ak ëllëg di ñaanal bu baax sëriñ tubaa sëriñ muntaxa bachir sunu boroom gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ tubaa lépp mu liggéey ko yaakaar naa bi màggal gi waaj am na bayit yuñ ci defoon yu gàtt di ko ko ubbeele di ko ko ubbee jataay di ko ci sëriñ Muntaqa xalifa bi jaajëf defar nga xarnu bi yàlla na nga fi yàgg bi nabi ak barke Ahmadul Mbakke sëriñ Muntaqa xalifa bi jaajëf Mbakke defar nga xarnu bi yàlla na nga fi yàgg bi nabi ak barke Ahmadul Mbakke yàgg fi sa ak yi ka seex aboo xalifa yi sa doom yi ak sa donga yi bi jaayi ahmadul mbakke seex muntaqa junni safar ak junni koor yàlla nanga wér ci barke waa ahlu badar ña gunge ahmadul mbakke kon nag ñu ngi koy ñaanal sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootuk sëñ Tuubaa gépp waaye nag ak umma islamiyati bépp di njabootuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen yu baax yéen waa 7TV di am mbégte lool ci ànd ak yéen ci liggéeyu màggal gi ndax eh, li ngeen def wax dëgg yàlla ñëpp ci kontaan muy dagg yi tey Tuubaa xat na ndox mi bari na mbooloo mi bari na waaye fépp fu ngeen yaakaar ne bu ngeen fa demee di ngeen fa fekk jëmm joo xam ni mm. mën na leen a jox ci Sëriñ Tuubaa loo xam ne taalibe yi di ngeen ko jariñoo wax dëgg yàlla yegg ngeen fa pour taataan kàddu yooyu kon nag ni ngeen xam ne murid yëpp a ngi leen di sant di leen gërëm tey kontaan ci yéen bu baax a baax bismillah euh, mu ngi noonu nuyoo bi am na solo bayit yi mu yëkkati woy wi mu fent ngir jëmale ko ci jëmm du tedd ji nga xamante ne mooy almuntaxa Mbàkke Bachir xalifatul am am na solo ñu ngi koy ñaanal loolu mu yàgg fi te wér euh, Serigne Bassirou dañuy tàbbi ci waxtaan wi waaye man li ma bëggoon ñu njëkke ko mooy waxtaan tuuti rek ci jëmmi Serigne Bassirou xëy na dañoo xëy rek découvrir ko ci média yi gis ci moom euh, gannaaw xam-xam bi li tubaab di wax talent cest à bu bëggee woy woy bu bëggee taalif taalif su bëggee durus ci xasida yi bu ko woyee sax nga ne loolu la gën a mën ko waxtaan boo ñu doon defal benn brèche bu ndaw ci jëmmi sëriñ Bassirou fu mu jànge li muy def fu mu ko jëlee ak yooyu nan nga ñu koy mën a tënkale waaw sëñ Bassirou euh, ngi gane jamono njaareem di way juróom di sëriñ Souleymane Gaye sëñ Souleymane Gaye moom ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Gaye moo ko jur ñu gën koo xam sëñ Abdou Ngone sëñ Abdou Ngone nag mu ngi bokk ci seexi sëriñ Tuubaa yi mi ngi jébbuloo foofu ci Jolof ba liggéeyal sëñ Tuubaa ci alxuraan ndox sëñ du Ngone bi muy jébbulu ci sëñ Tuubaa kaamilu alxuraan la bind jébbale ko boppam sëriñ Tuubaa kon nituk alxuraan la woon sëñ Tuba joxaat ko ndigal mu bindalaat ko beneen kaamil kaamilum ñaareel boobee ci lu ko sëñ waxee ni jox naa leen ndigal ngay jàngale alxuraan moo tax ñun sunu famille yëpp ay jàngalkati alxuraan lañ man mii di wax ak yow daara laa yor ca dakaar Ouest Foire di jàngale alxuraan kaamil boobu ba ko bindee ci la ko sëñ waxoon ne ko sa tur wi ak sa mécc mi du ma ci soppi dara ku tedd kooku nga xam ni moo jëbbuloon ci sëriñ Tuba moo jur ku ñuy wax sëriñ Souleymane mu jur ñu. sëñ Souleymane Goy moom it way juram soxna Faati Jenn moom sëñ Isaa Jenn moo ko jur moom satub sëñ Isaa Jenn la ñu ganee jamono njaareem sunu way jurit sëñ Souleymane Gay ci biir daaraam lañ jànge alxuraan sunu taaw baay bu ñuy wax Cheikh Mahmoudou Fadal moo nu jàngal alxuraan bañ mokkal ko ci sunu biir kër baay lañ jàngee xam-xam maanaam sunu njàng lépp daal muy alxuraan di xam-xam lépp ci sunu biir kër waajur lañ ko jàngee ginnaaw bi nag biñ noppee ci ñun ci lañ soog a dikk Ndakaaru di fa dox ay mission mission boo xamante ni mooy yaatal liggéeyub Serigne Touba bi ba suñu borom dogal tey jii ñu samp fa daara di fa jàngale. ama métier mi nag nim ñu dikkalee lu dara loolu biñ jàngee ba noppi gis euh, euh, ni nit ñi bëgg nañ bëgg nañ Serigne Touba te am na lu tuuti lu ñu xam loo xam ne buñ ko partagé ak ñoom mën naa yokk seeni i pas ci Serigne Touba ñu gën doon xale nekk njaareem. am wootekat yu fa ñëw di dévier gone yi ci yoonu sañ bi ñun itam ñu takk sunu laxasaay xam ni sëñ Tuubaa li mu yor moo gën a riis lépp moo gën a baax lépp moo gën a sell lépp te buñ ko jàllalee rek ñëpp danañu dellu siwaat ànd ak sëñ Tuubaa ndax man nit ñëpp yërmande laa leen yéene te yërmande kooku yéene fexeel ba jëm ci sañ Tuubaa ñu takk sunu laxasaay dugg ci terrain bi jàkkaarloo gaañi ba lañ doon combattre sunu borom defal luñ ci tawfeex nde sax jubluwoo nekk jubluwuñu woon nekk conférencier ndax ni ma la ko waxee ñun sunu euh, ndigal ci sëñ Tuubaa mooy jàngale alxuraan ca loolu lañ nekk waaye ñu dem nag ba lii dooleeku ci ab soññeekat daal lañ tudd mm. waaye duñ conférencier ab soñeekat lañ boo xam ne dañuy soññ nit ñi ci sëñ Tuubaa Xaadimul Mustafaa ci tënk daal liggéey bi noonu rek la ñu dikkalee pas-pas boobu moo ci dugal. macha allah pas-pas bi noonu la tàmbalee waaye nga di ko def euh, différemment ak ñu bari ni ñu koy defee. mooy li may wax léegi-léegi ci talent bi euh, ci way yi ci xasida yi léeg-léeg sax ci biir waxtaan wi nga tajjud alxuraan woo xamante ni ku ko digg day xam ne kii euh, xam-xam bi seen la macha allah talent boobu lu ko indi. waaw man nag xam nga dama xaw a waane tuuti. maanaam ma waane nag bu ko olof waxee li li muy firi dëgg-dëgg. mooy koo xam ne métier mu nekk daf koy fexee man nu ko kenn maniwut waaw dama gis ne ma dikkee fekk naa fi ay nit ñuy waxtaan. gi fekk naa fi ay jàngkat. léegi bi ñu dikkee ci géew bi eh, sun borom dimbali woon nañ ñu tuuti ci ñu man ci njàngum xasida ndax jaar nañ isbu tarxee daar xudóos def nañ fa 10 ans kon léegi da gis koo xam ni buy waxtaan dañuy invité ab jàngkat mu toog di jàng man nay jàng kii di firi léegi ma ni lan moo tax man munuma boole ñaar yëpp andi ci géew bi boo gisee ñaar yooyu ma boole sax tax na dox bi gën a gaaw ndax léegi tey boo nee sëñ Basiru rek dañ naan mooy kiy jàng di waxtaan ak itam bëgg a sama empreinte ci yoon wi ma nekk mhm. ndax tey histoire dañ koy nettali ëllëg mhm. mais jàpp naa ni tey yoonu murit xawma maanaam du ma damay bañ a wax lu ma xamut mhm. waaye defe naa buñ demoon bay bind di wax ki njëkk a tàmbalee jàng di waxtaan man naa am man lay doon su fekkee ne am na ñu ma ci jiitu it bariwut wala xamaguma ko bokk ah, waaw loolu moom jàpp naa ni même bu buñ ko gisaatee ci sama kanam ñu koy roy ci man lay doon loolu itam mbir boo ci bokkee nga fexee dugg ci histoire ba day am solo te li ñu mën a dugal ci histoire bi mooy diw mii kat ñi fi jëkk tàmbali jàng di waxtaan ci yoonu murid ci la bokk loolu tax ñu indee ko noonu même sikar sax sikar sax waaw sikar sax loolu tey lu ñuy découvrir lay doon ci biir waxtaan bi incha allahu rabbi maa ngi koy wax am na talent bu ne ci moom xam-xam bi sell na macha allah mu am tamit style bu particulier dañuy daal di nag tàbbi ci li nga xamante ni moom moo wi dañoo nekk ci màggalu Touba euh, Serigne Bamba liggéeyam bi yaatu waaye may yi bari lool tey boo ñu doon tënkal sëriñ Serigne Bamba yi ci digganteem moom ak yonent bi ndax xëy na lu mu bind rek ci moom la ko jëmale dama lay bàyyi rek nga daal di dugg waxtaanal ñu ko mu yaatu. waaw loolu moom dafa koo ñàq sëñ Tuubaa digganteem ak yonent bi daf lu mu ci am rek daf koo mérité daf koo ñàq ndax dafa wax ni mboolem ñi fëxoon di daw maanaam liggéeyal yonent bi bu fekkoon ab kursu la sëñ Tuubaa nee na man maa jël pay te loolu yàlla ci jëmmi boppam moo ma ko xamal moo ma xamal ni ñi doon liggéeyal yonent bi yow yaa ciy jël première. mu bind ko nag ndax man toujours damay bëgg lu ma la wax rek ne la sëñ ko bind fii dafa wax ni xaddamani llaahu ala al xuddaami bil mustapha musabbitil aqdaami yàlla moo ma jiital ci ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moo ti moo féete kaw ñëpp ñi ko doon liggéeyal sëñ Tuubaa nee na maa ci jël première nee na itam suñu borom moo ma tànn moo ma def maanaam tey ñu jëw jël la ne la dañoo bëgg nga liggéey barab sàngam sëñ Tuubaa ne ne yàlla moo ma tànn ngir ma liggéey yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci kaw càkkutéefug yonente bi nag allahu qad jaalani xadima bil mustafa lasi hawa taqdima waaye nee na yonente bi moo sàkku ci suñu borom tabaraka wa taala man sëñ Tuubaa ma ànd moom ci ab liggéeyam raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu wa abdallahi ala lisi talaba kaw niyal xadim lahu salamatil bariyatil xadim sëñ Tuubaa ne liggéeyal naa ko moom Moustapha alayhi salaatu wasalaam liggéey bu ko kenn mës a liggéeyal waaye nag defal na ma lu mu mës defal kenn ndax liggéey bi mu ko doon liggéey mi ngi tàmbalee ci di ko tagg xam nga tagg li muy tegtale mooy ngay indi jikko yi nit ki aw doxalinam bu baax sëñ Tuubaa na ci loolu laa tàmbalee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tagg yi ma ko jox amul kenn ku ma sa wàcc ci kaw suuf tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu mel noonu mësta am ci kaw suuf boo demee dafa dafa wax ni xadil tazamtu lahu fii kulli ma sanatin maadaama aqli mah yi day nal hadiyaati nee na naa at mu jot borub tagg boo xam ni dama koy jël di ko jóor yonent bi sallallahu alayhi yu bokkul baxri yu bokkut ndax tey jii boo dikkee ci xasida gu ni euh, jazbul xulóob sëñ Tuubaa yonent bi la fay tàgg di wax bindam bu rafet di wax jikkoom ju rafet daf koy topp yaamul ximan qad waffaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaxa xuluqa kal xalqa wal tusallimi qad kaana daa tawassuti fi lqaddi jaali sututi walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami ca la koy topp ba ci yàgg mun la wa huwa akmalul wara xalqan loolu kenn mus ko wax Mustafa alayhi salaatu wasalaam yonent bi moo gën a mat ci mbindeef yi ci bind waxul xan waaye moo gën a rafet ñëpp jikko sahara daan ne wal mislu xattu lam yura walan yura <laughs> lu day waar a ngi noonu maanaam xattu lam yura mooy bi yàlla bindee aadama ba ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam monsieur fu ko gis ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yàlla ñëpp waaye walan yura mooy fi yonent bi ginnaaw yonent bi ba keroog addunuy tukki doo fa gisaat ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon dalaa tàmbuleel ci aadama ba ci Mustafa tàmbuleel ba ci Mustafa ba kii mujj a judd ci adduna amul kenn koo xamante ni di nga mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal bis lu xattu lam yura waaye walan yura ci lan fi siyami ci jikko ju rafet ñu ne ko waa sëñ sëñ ahmaduna rahmatuna amiduna ni'matuna mahmaduna farhatuna waljodu munsuridiyami ahmaduna rahmatuna hamid محمودنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسرد يمي ahmaduna sunu ahmad mii rahmatuna mooy sunu yërmande kon wax na la ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy yërmande bi def yëpp xaamit aw turam la mun la xaamiduna sunu xaamit mii ni'matuna mooy sunu xéewal kon xéewalug mbindeef yëpp mooy Mustafa alayhi salaatu wasalaam waaye ne mahmoud aw turam la mun la mahmudu naa sunu mahmoud mii nag farxatu mooy sunu mbégte wal juudu musri di yemi ak tabam gàcceel na sax ab taw xam nga taw buy taw du ne fii lañ ko soxlaa wala faa ndax ca àll ba lañ ko soxlaa ca njima waaye tey dëkk bépp ngi fees ak ndox nee na li asaman si tabe tabe banga nga xam ne buy sotti am ndox fépp la koy sotti yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a tabe dox ci loolu ba yàgg yonent bi ne ko changé bahru bi way ma ci beneen bahru te indi sëñ Tuubaa ki gën a tedd ay jikko ki gën a neex ay tur ki gën a bari ay tur yu rafet mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko limal sëñ Tuubaa ne nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun habibun misluhu laysa yu'lanu najiyun qaribun dhakirun wa huwa shakirun jawadun karimun bil makarimi yuhsinu naqiyun taqiyun salihun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bil haqqi yusinu ñu ne ko daaj ko borom Tuubaa di nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun qalilun habibun misluhu laysa yolana najiyun qaribun zakirun wa wasakirun jawaadun karimun bil makarimi yusinu naqiyun taqiyun salihun wa muslihun basir شمسو حياء معذب نذير لمن بالكفر وزرق يولنا loolu itam beneen baxaru la mel ni Moustapha alayhi salaatu wa salaam dañu ko soppil baxaru bi te soppi daaj bi Sëñ Tuubaa demaat ci beneen baxaru وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء samsu sumosi rasu rosi xayrul anisi lilawni yayi sifa su doore diyawu doore badrul bu doore baadi diyayi sëñ Tuubaa ne nii laa nekk ngeen sala sama di ko tagg mu di ma may mu ma di ko tagg mu di ma may ba yàgg mu ni ma loo bëgg ma ni ko man de lu dul jeex laa bëgg mu ni ma kooku moom yàlla rek ko am hmm. lu dul jeex nga bëgg yàlla ko am waaye nag dinaa la defal faveur bu musul defal kenn mooy yow sa audience ak sun borom may jàpp ci sa loxo yóbbul ba ci sa borom tabaaraka wa la xam nga sëñ Tuubaa la yàlla moo ma orienté woon ci yonent bi tey yonent bi dellowaat na ma ci yàlla dallani allahu ala xayril wara dallani tegtal na ma allahu yàlla ala xayril wara ci ngeen mat na ma xayral waraa ngën gi mu def li sil waraa delloo ma ci borom bi ndefi bi ma dikkee sun borom tabaaraka wa taala laaj ma loo bëgg ma ni ko man lu dul jeex laa bëgg mu ni ma ndongali lu dul jeex nga bëgg ma ni ko lu dul jeex laa bëgg mu ni ma may naa lu dul jeex sëñ Tuubaa bind ko wax ni yajuudu lii jawaaduma laa yen fadu wa kullu maxluuqin siwaaye yan fadu sun borom jox na ma lu dul jeex meneen mbindeef mu dul man nag na nga xam ne li nga yor day jeex te loolu mi ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak liggéey bu mu ko doon liggéeyal ci loolu la ko suñu borom may tabaaraka wa taala mboolem xol yi nga xam ne yàllaa ci nekk xol yi xol yi yëg yàlla ñëpp sopp sëñ Tuubaa xol yi texe ñëpp yëg sopp sëñ Tuubaa qulubu jumlati lasina aflahu liya tawajjahat wa rabbil muslihu sëñ Tuubaa nee ne xooli ñooñ yàlla yi ñëpp yàlla may na ma leen qulubu ahlillahi nahwi aqbalat nee na ci loolu nag la ko suñu borom may mbooloo mii mu àndal muy noonu bi ko suñ borom mayee murid yi ba noppi xamal ko ni ko mbooloo mi ànd ak yow musal naa leen ci sawara sawaraw adduna ak sawaraw alaxira sawaraw adduna du wii nu xam sawaraw adduna mooy bañante sawaraw alaxira mooy wi ñu xam suñ borom musal na ci murid yi sëñ Tuubaa ko bind ne na jaahumul baax yi mi nan niiraan yi dunyaa wu oxraa wi nal xusraani sun borom musal leen sawaraw addina muy bañante murid yëpp dañoo bëggante wa nasaana maa fi sudurihim min xillin ixwaanan ala surril mutaqabilina sawaraw alaxira suñu borom musal na ci murid ba pare musal leen ci perte dunya wa oxra wa min al xusraani sëñ Tuubaa tegaat ca ni li kulli man bi ta'allaqa najaa min kadari dunya wa fil yawmi najaa mbooleem ko aju ci man di sama taalibe bokk na ci may yi ma yàlla may doo gis euh, nëx-nëx yi adduna doo gis nëx ci biir bàmmeel sëñ Tuubaa teg ca ni wajaha rabbi lahum bilantiha bilantiha baadal mamaati kulla xayrin yustaha mbooleem yéen ñu ma sopp aju ci man di samay taalibe nangeen ngeen xam ne bu ngeen faatoo ba kere ngeen dugg àjjana diggante boobu li muy yàgg-yàgg yéen du ngeen fi gis lu leen naqari loolu maa ngi leen yéeneen ko amee ci sama daraja maa ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi kon nag diggante sëñ ak yonent bi lam ko waxoon ne ko juttu lahul yawma bi ruuhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alan yow Mustafa may naa la sama ruu may naa la sama yaram may naa la sama wayjur juru góor may naa la sama wayjur wu jigéen may naa la samay doom loolu ak cofeel ak bëgg foofu rek la mën a yam moo tax lu mu am ci moom rek mérité na ko. <laughs> wax ji nga wax ci njëlbeenu kàddu yi tekki nga ko firndeel nga ko lu mu am ci yeneen bi rek da ko mérité euh, mu am benn question rek bu ma ci pëtëxal ci foofa laataa ñoo génn euh, ndax bu ma lay dégg ci way yi maanaam day mel ni sëriñ bi yemul woon ci bind bi. waaye moo daan tànnal boppam ni muy daaje way yi. waaw sëñ Tuba euh, très question xam nga. bi mu nekkee Maayomba di bind xasida yi xam nga foofu la wax ni baayaatuhu fil bahri taxta shajara wal bahru musbidun waxaw li fajara maa ngi jaayante yàlla ci roon garab gii waaye géej gi di di duusu di far li ma bind waxaw li fajara ñi ma wër ñëpp di ay kàccoor nee na foofu damay bind xasida yi su ma bindee ba noppi dafa gudd mais dama koy résumer parce que temps bi bariwul nee na su ma bindee ba pare léeg-léeg yonte bi feeñu ma foofu ne ma li nga bind jàng ko ma dégg maanaam yëkkatil ma xasida yi sëñ bi day jël kaala gi takk ci dënnam moom kaala gi ci dënn bi la koy takk tàmbali foofu di yëkkati xasida yi di ko yëkkati ca kaw mooy daaj yooyu ngay dégg yu ci bari foofu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di feeñoo ci géej ci ci fis gu maayom ba gi ne ko nag léegi yëkkatil ma xasida sëñ Tuubaa takk la xasaayam di yëkkatil boppam xasida yi di ko woyal boppam kon jàngkatu xasida bu mag bi mooy sëñ Tuubaa am na air yu yoo xam ne sëñ ci sëñ bi lañ ko jëkk a dégg mel ni ñamal nabi wa rasul ñamal la si jaada bi so lana bi rabbil jamil min sikri wal laqami ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada wa natquwa dawil huda an xattiha bil qalami arsalahu llahu ila kulli lwara murattila dhikran alayhi unzila hudan li si taallumi kon sëñ bi daana bind daana yëkkatil boppam xaside yi ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ok loolu moom lu leer la loolu moom laaj bu matoon a xam la ndax léeg-léeg nga dégg xaside gi ñu daaj ko ci daaj yu neex yoo xam ne nii di nga xam ne lii ki ko bind moom rek ko mën a woyee nii de daaj léeg-léeg dafa am daaj yoo xam ni dafa wax ni malaaka yi la dégg ñu di ko wayantoo moo sëñ Masamba dégtal ko daaj bi sëñ Massamba dégtal ko mag ñu jàng ñu jànge ko noonu macha allah leeral bi am na solo yaa ngi koy wax waxtu wi xëy na du du may ñu yaatal yenn yaatal yi ndax dañoo ne ci màggal te ñi lañ lay xaar ci ay jotaay bari na lool waaye dañuy dem ci diggante sëriñ bi ak alxuraan gannaaw sëriñ Bamba li mu taggee yonent bi ak li mu ko liggéeyal sëriñ bi nan la defee woon ak alxuraan waaw sëñ Tuubaa moom alxuraan mooy léppam tukki bii nuy màggal tey nee bi ma jógee di tukki ne delluwaat ci alxuraan ne walillahi almashriqu walmaghribu fa inama tuwallu fa sama wajhullahi inna allaha wasiun alim ndax dañuy bëri murid yëpp jóg nag ab xe ab xare la waroon doon sëñ Tuubaa yéen ñëpp toog leen yàlla moom penku bi moom sowu bi foo jublu rek yàlla nga fay fekk yàlla ne ci penku bi moo moom sow moo ne ci euh, sow bi foo jublu yàlla nga fekk ñu ne waaw mu ne kon yéen yëpp toog leen daan yàlla malikun lahu sharqun wa garbun wahdahu wa kadalihu barrun wa bahrun yukmilu yaa moom penku bi moom sow bi moom géej gi moom jëri ji yaa nekk ci penku bi nekk ci bi nekk géej gi nekk ci jëri ji suñu borom ne ko waaw mu ne ko wakkun amaam yi jiitu ma fa ma jëm maa ngi tukki si wakkun xalif yi des ak maam Cerno Ibra Faati ci njaboot gi wakkun wasit yi nekk ci digg bi wa fi yem su ma gëstoo sama nday jox naa la gis si maali su ma gëstoo sama càmmoñ naa la gis ndax yàlla yow yàlla mën ngaa nekk fépp yaa rajaa yekku ni suñu borom ne alxuraan jugal ahmadu day tukki demal gunge ko ne yonent bi ahmadu day tukki jugal gunge ko ne sahaaba yi sañ tubaa day tukki jug leen gunge ko borom tubaa ne rafiix yi nee na ñi ma àndal ci tukki bi ki ci jiitu mooy kitaabullahi jooj ngay wax alquran wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hiina adooru moo tax jëmmi sañ tubaa boo déggee ñoo naan la bi tukki bi tëddut tibbut tëddut tibbut tegul cin tegaluñ ko cin neewul fu ngeen ma jëmee néewul kañ la ñuy dëpp maanaam daan na lekk waaye jëmmi alxuraan moo doonoon ak lekkam loolu ci sëñ tubaa ko jëkka a koo xam ne bu xiifee bu jàngee alxuraan suur déedéet daawul tiim ñam déedéet bu xiifee alxuraan lay jàng reg isa sumu sumunan aw rubaa aw nisfan aw waxfan ruwiitu musbia ne su ma jàngee sumun wala roba wala nisif wala ma jàng sama waxtu sëñ bi ne damay daal suur fa saasa jëmmi alxuraan sëñ Tuubaa liggéey na ci liggéey boo xam ne ñëpp lay lancé défi doo dégg ci àdduna ku ci liggéey liggéey bu toll noonu ndax dafa sàkkoon ci deesu ko temps bi waaye ci misaal rek ma jox la ci yenn yennaat mooy fu ma sa nekk ci àdduna sàkk na fa li ñuy wax daaree kamil Sëriñ Tuubaa ku jëkk a mooy mooy tànn 28 personnes yoo xamante ni buñ julee fajar ñu jàng ab kaamil buñ julee tisbaar ñu jàng kaamil buñ julee takkusaan ñu jàng kaamil buñ julee timis ñu jàng kaamil buñ julee gee ñu jàng kaamil nga xam ne waxtu julli wu ne dana yóbbaale xatmu daaree kaamil ji mujj samp samp 1913 la ko sam njaareem 1913 ba léegi bis bu set juróomi kaamil. juróomi bis bu set juróomi kaamil du tardé ba tey jii moo ciy mujj. suñ julee fajar ba nopp ñaari kaamil la ñuy jàng buñ julee tisbaar jàng benn buñ julee takkusaan jàng benn maanaam ñaari kaamili fajar yi benn bi mooy doon bu timis ñaari kaamili takkusaan yi benn bi mooy doon bu gee seetlu nag 1913 ba léegi bis set juróomi kaamil kon réew mi ak adduna li leen sëñ Tuubaa sottil ci ay xéewal ñoom xamuñu sax lu mu toll damay wax ni ku doon góorgóorlu nag. te daari kaamil bu njaareem bi ko Sëñ Tuubaa di samp moo tax foofu lu ne lu fa ku murit bu ko xamoon loo am di nga ko fa yóbbu bi nga ko fay samp mu rëddal boppam tànkam ba daara ji wër mu woo Cheikh Ibra Fall lamp babil muridina monsieur bi gi Kumba Fall Ahmadou Fall Sayer Ndiaye bërëm jëpp ma ca gaay góor jëpp bàyyi laala Fall maami Cheikh Madou Fall Fall tux rang bambaan gi wékk wóolu gi daj jëpp gi maami góor ñi jigéen jëkkëri góor ñi sëriñ sëriñ si taalibu sëñ Bamba ku yàlla bin tam na texe Sidi Ibrahima ne ko Ibra Fall sengeel sengeel ma digg bi Cheikh Ibra senge ko mu wër sëñ Tuubaa nag Ibra Fall digg bi moo gën ci àdduna wallahi tànn ñaar fukki nit ak juróom-ñett lii ci yéeme mooy lim boobu sëñ Tuubaa tànn ñuy jàng kaamil bi moom ci la bokkoon moom ñaar fukk ak juróom la tànn tànn boppam tànn sëñ Modou Moustapha tànn sëñ Fallu te lii ma lay wax sama baay man bi ko sëñ Fallu di yebal daari kaamil njaareem mu war a bokk ci ñuy jàng lim ba dani ko maag sëñ Modou Moustapha sama mag ju baax ja sëñ Tuubaa danoo boole woon ca lim ne ko sëñ Modou Moustapha nekkatu fi amatuma jot gi demal boo gi nga ba boole suñu yaari jukki yi di ko jàng jukki sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou sama baay koy jàng man sëñ Tuubaa bi bi mu waxee nañ ko senge ba noppi digle kaamil bi dani suñ borom bëgg naa tukkal addina waaye man la rus dani sama kaamil bii waxtu wu ngeen xëyee benn képp manque ci asamaan seek suuf si nañ taxaloo bi mu waxee loolu sëñ Bay Saar ne ko Mbàkke da nga doon nëbbutu waaye feeñ nga damaa bëgg ñii nga tànn nag ñu jàng sa kaamil bi nga boole ma ak ñoom ma yor leen sëñ Tuubaa ne ko Mbay Saar ñii du ma leen booleeg mbindeef yàlla mi bind mbindeef laa leen di booleel sëñ Tuubaa wax ni barab bii lépp lu fay teg sa tànk ñaan ko fi mu nangu ndax alxuraan bi fiy jàng kon mooy ki jëkk taxawal barab boo xam ni lam fay def mooy jàngalu alxuraan jàng alxuraan képp damay wax na nag ku doon jéem a roy sëñ Tuubaa ba lijjanti barab boo tabax ñu fay jàng alxuraan xam nga problème lan nga njëkk am 28 mm-hmm. personnes yu la fa toogal naan dañuy jàng ay kaamil loolu mooy njëkk doon sa problème yow sëñ Tuubaa njëkk a tànn mooy koo xam ni alxuraan dafa noon ay bind kat mm-hmm. biir këram daa am ñoo xam ne duñ def dara lu bind alxuraan foo leen fekk ñoom ñu ngi bind kaamil yi di tegale ndax boobu mool demewut nii ah, déedéet sëñ Tuubaa naat mbooloo moo xamante ni maanaam naafile yi salaatu tarawih julli weeru koor yi ñoom ñooy jiite naafile yi te it da leen di warlu lépp mbooloo muy bind mbooloo muy jàng tànnaat ay jàngalekat alxuraan ñoo xam ne moom defloowu leen dara lul jàngale alxuraan foo leen fekk ñoom dañuy jàngale alxuraan rek ku mel ni sëñ Daam Abdourahmane Lo ca la bokkoon ku mel ni sëñ Abdou Ngoné Gaye mu jur sama baay ca la ak ñu mag ñu baree bari ñoo xam ne jàngale alxuraan rek leen sëñ Tuubaa daan defloo te ñii ma la wax it ne leen sëñ leen tànnoon kenn ku ci nekk li war ci yow lépp moo la koy defal sëñ Tuubaa ci laa nekk ci lii laa nekk ba yàlla xëy soo may ma alxuraan hmm. ko wax man lakani alquranu rabbul alamin wa qaadahu liya al aminu wal amin man lakani alquranu tamlikan yadoom bi annani xillun wa hibbun wa xadim man lakani alquranu tamlikan yadoom wa maliki jaalani lahu xadim muliktuhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan waliyu di munafaqa sëñ Tuubaa nee na moo sun borom may na ma alxuraan ma gu sax hmm. loolu itam da ci am firnde yu bari boo duggee ci Tuubaa gi tey Touba wala Njaareem wala Daaru Salaam dëkk boo mën a dem ci àdduna da gis fukki gone ñaar yu ànd ñëpp mokkal alxuraan tey ñoom du duñ ko duñ ko sax yëg maanaam tey bu fa mel ni yeneen dëkk yi da nga gis koo xam ne ku fa mokkal alxuraan ku siiw ngay doon waaye fii nga gis fukki gone ak ñaar yoo xam ne yére yu xotteeku la ñuy sol nekk ci mbaa demee di dox te ñoom ñëpp xaafisul quraan lañ mën nañoo tari kaamil bi mën nañ koo bind te duñ ko xool bu fekkoon am na fu alxuraan yomb alxuraan bu doon late dañ lay wax naan dëkki sëñ Tuubaa yi moom foofu dikk mbooloo moo seen ñi ci ëpp mokkal nañu alxuraan karim dama koy wax Dakar léeg-léeg dañuy toog man ak sama xarit ñuy waxtaan ba yàgg ma ma ni sëñ Tuubaa yéeme mooy nun ñii fi toog ñun ñëpp fi ne mokkal nañu alxuraan kon la sëñ Tuubaa waxoon na ma alxuraan dafay firndewu ci suñu jataay yi kon nag euh, jëmmi sëñ Tuubaa ak yonent bi jëmmi wax ni xaside yi foo ma fekk may bind xaside yi sama làmmiñ mi ngi tari alxuraan maanaam daawul toog nii di bind de day bind loxo bi làmmiñ bi di tari yaddi yi taqutu wa lisaani yatlu wala sa yéen xooli jihaatil xatlu sama loxo ngi bind xasida sama làmmiñ di jàng alxuraan isa isa katabtu aw qarahtu hal wara iblisu fawran ma aman taqawala sëñ Tuubaa neen su may bind xasida wala may jàng alxuraan iblis day daw bu sore sore sore sore sore sore ngir ragal gu ma ragal ak bàyyi gu ma bàyyi xel kon kooku digganteem ak alxuraan diggante bu yaatoo yaatu boo xam ne mën nañ cee waxtaan lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg te jeex lii mooy diggante sëñ Tuubaa ak alxuraan lii mooy diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa mel ni temps bi comme xaw naa xat ñu taxawandi foofu rek. moom xam naa ne ku ko dégg nii nga ko euh, faram fàccee moom du laajte fan la jëlee mayam yi. Mhm. di nga xam ne may yi ay may la yoo xam ne ki ñu ko jox wax dëgg yàlla mérité na ko ndax ni mu fi mu jaar ak bi ak fi waaye itam fi mu jaar ak li nga xamante ne moom moo di téere bi yàlla bi di alxuraanul karim Serigne Bass xam naa ne faa ñu yëkkati jotaay bi ndax euh, ñi lay xaar bari na mhm. waaye du ñàkk itam nga yëkkati ay kàddu soññe rek ci li nga xamante ni nag moom moo di màggal gi ndax moom moo ne woon ku sama mbég di sa euh, di sa ku sama mbég di sa rek bu bés bi ñëwee nag ma ci sant la yàlla. waaw moom damay wax ni euh, ab la waaye sëñ Tuubaa li mu bëgg wax mooy jullit ñëpp nañ sant la yàlla parce que mbégum sëñ Tuubaa mooy mbégum yàlla. te kon ku mbégum yàlla di di di sa mbég war ngaa sant la yàlla sëñ Tuubaa ci bi. Hmm. te mbégum sëñ Tuubaa mooy mbégum yàlla kon mbégum mbégum sëñ bi jullit ñëpp kon fépp fu ab jullit nekk màggal 18 safar war na la bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nag dama yox ne Sénégal gii képp ku fi ne tey ab jullit sëñ Tuubaa taxaw gi taxaw lislaam ci biirom Ndar ak feneen ak feneen ak feneen loolu war nga caa mën a am mbégte moo xam ne kenn kenn kenn kenn kenn du la man ci màggal gi mu teg ca ni ku sama mbég di sa mbég nag ma sant la yàlla murid yi it am ci lu particulier parce que dafa ni lu ma am ci laa ko am waaye lu ma leen amal yéen ci laa leen ko amal moo tax bu màggal gi ñëwee da ngay gis minute yi dañuy mel ñu dof balaa kenn xam lu mu màggal gi dafa jàll fi ne nga gis ab boo xam ne bu màggal jàllee bu ne ko temps bii financé ko ci màggal ko ndax jamono bi nga koy génne yëgu ko ngir mbégteem sëñ Tuubaa moom di rogalaat ci moom te mbégteem sëñ Tuubaa dafa ëpp ñëpp doole moo tax gi ñoo ngi ci soññi ñëpp ñu gën koo fonk te gën koo jàpp tey di ci bernde bu baax a baax ndax màggal gi bernde la bernde la sëñ Tuubaa woote woon ku la ci gën a bernde rek mu la ëpp yoru màggal beneen bi ci toppit mooy tere yi nga xam ne sëñ baa ngi koy tere ci dëkk bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ab dëkk nag buñ ko sancee ne nangam ak nangam dañ ko fay tere kon képp koo xam ne jug nga ngir jëm jëm ca dëkk booba mel na ni pare nga pour bàyyi li ñuy tere lépp ngir mën a ngir mën a jaxasoog waa dëkk ba kon daal li ñuy ñaan it mooy sëfoor si dikk ñu daw ndànk andi gan yi sëñ Tuubaa yi ci jàmm ndax gan ñi gan yi sëñ Tuubaa lañ ku leen teral gan yi sëñ Tuubaa nga tel delloowaat ci jàmm ñu màggal ci jàmm ay wi nekk ci àdduna sépp ak kiris beeg ñàkk gi suñu borom yàlla na ko jeexal ci daraje màggalu Sëñ Tuubaa gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah jërëjëf Serigne Bass dañu koy ñaanal suñu borom yokku fanam guddal ko lool. gën a wéral baatam gën a leeral xam-xam bi ba fépp ci àddina mu mën faa taxaw ngir gën a jàngale li nga xamante ni moom moo di jëmm ju tedd googu di Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul daan nañ ko seetaan ci ay télé daan nañu déglu waxtaanam ci internet amoon cofeel loolu ci moom waaye cofeel googu léegi dafa yokk tey gën a bari lool ci bi ñu janook moom ndax boo gisee jëmm ji xam ne wallaay addi sax taxu ko loo euh, taxu koo bari waaye da nga xam ne dafa jël dundam gépp rek jox ko Serigne Touba di ci gëstu itam di ci wut xam-xam bu baax a baax moo waral bu toogee buy waxtaan sax da ngay jàpp ne boo moyuwul kiy wax at yi mu am Euh, weesu na fi fi fi nga ko fi nga koy natt moo tax bëgg nañ ci moom bu baax a baax doon am mbégte ci waxtaan ñu doon séq ak moom euh, seen télévision 7TV la woon ngeen àndoon ak seen xarit Mara fii ci euh, jannatul Mahwa ñu seet si woon Serigne Bassirou gay muy koo xamante ne kenn la ci werekaanu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di ko waxtaane waaye tam di woyaat mbindam yi ci woyin woo xamante ne woy wu neex lay doon di wax ne suñu ay mbokki téléspectateur nañ wéy di ñu topp di wéy di bàyyi xel programme 7TV nañu leen ko diggee woon 18 safar gi daañu leen ci gunge ci njëlbeen li ci bis waaye waaye itam ba ci njeexital gi bu soobee yàlla jaajëfal nañ képp koo xamante ni rek mi ñu doon topp jox leen dig daje incha allahu rabbi ci beneen jotaay jërë ngeen jëf